salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar jox sa wàccuwaay bu ñaan Sénégal na fi jàmm yàgg di ñaanal way dawlu yi suñu borom yërëm leen te xaar leen te àjjana firdaw si ñu feebar tëdd si hôpital yi si kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp rawatina ñu caabi féetee ba fi mu yem rek ngi leen di bëggee bu baax baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay jëm muy journée la 4 muy diggante Batista Boy Sadio dañ naan jeune amateur wala amateur yi ñoo ko ñoo si woote boole ay espoir dafa am combat buñ ci jukki muy combat boo xam ne combat xale la combat njarndéem la diggante Bib Diop bébé Ama démb gannaaw démb na demoon nañ ci Bib Diop nag te ñu ñëw seet seen bébé Ama bébé la wala wala wala taaw. waaw ras la. <laughs> nuyu naa la. naay siyaar naa la Idi di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu monde entier. di nuyu sama gaay di bëggee waa Kër Mbaye Fall di ñaan yàlla waaw comme ni nga ko waxee rek ñu génn àdduna yàlla yërëm leen xaaree ajana waaw ñu nekk ci biir kaso yi yàlla dimbali leen ba génne leen te li leen buñ fa génnee mhm. leen fa dugal bañ leen faa delloo <clears throat> di fa jaaree di am ñu ma bëggee ku ci mel ni sama sama copain naar bi maa lay bëggee bu baax gaynde yàlla la yàlla génnee foofu ku ci mel ni Omar ciib ciib sayar bu mag bu ndaw Kër Mbaye Fall képp ku ne ci biir rek daaw sama gaay maa ngi leen bëggee lu bari di leen wax yàlla na leen yàlla génnee foofu noonu te ngeen bañ faa dellooti. amiin amiin ak képp ku fa ne rek di bëggee kër Mbaye Fall yëpp surtout sama gaay ko ci mel ni Kara Gajaga Aada Lamine Ndiaye. Mm-hmm. waaw di bëggee tamit ñiy jàpp ci combat yi xam naa loolu lañ ci ñëw ci kanam. loolu lañ ñëw incha Ama mm-hmm. ki fi ñëpp bàyyi nga jël ki nga xam ne xàmmewul janj ak joor ileer gumba la nga jël ko mu biib Diop lan moo at ci li nga jugee nii. te pourtant daf ma fee bàyyi woon de. waaw ah, ndax combat moo njëkkoon taxaw. waaw. Ah. combat moo njëkkoon taxaw. ba ci biir mu bañ. daw génn. waaw. Ah. waaw ñu demaat ba ci biir ñàkk pexe pexe la mu ñëwaat. est-ce nekkul dafa jàpp ne fii daa xaw yomb moo mu doon uti ji lu dëgër wala. waaw lu tëw xam yombul yàggul lu tëw a xam rek yàggul samedi yàggatul xam wax ju bëri nag moo ma ci dul fekk. dina la si fekkee ndax fi toll moom maa wax la. sax moo tax mu demee nii. yow hmm. xamoo nu mu demee yow. <laughs> ndax bu dul tey xam nga ma seetaan ma. seetaan waaw loolu surtout xëy na moom daf maa daf maa réeree tuuti lu ma réeree. dafa lu tuuti lu mu umpale si. bébé Ama. te lu bari la sax du lu mu umpale. su gis bébé Ama. sorti mi mujj yi ni mu demee. Mhm. est-ce que nekkul bébé Ama day suy ñëwaat est waaw ak Bib Diop xale la dafa nekk si yoon def cinq combats cinq victoire nee na yow yaay sixième victoire am. gën a doon xale foofu. Eh? pour man nii. Hmm. <laughs> baaxul mais xam nga maa ngi koy dégg yooyu yëpp mais xam nga làmm demee noonu. Hmm. yàgg yàgg yàgg bu samedi maa ngi kaw. eh incha allah. mu ñuul mi la de. moo ndaa ndaa ma yëgul njool. ndaa ma. ndaa ma yëgul njool. moom démb nee na. Hmm? lenn nga am si làmb ji wax nee na yow ak ñi la jëlloo làmb ji mooy sa paa la jëlloo làmb ji dañ lay nax waaw làmb ji mu ne wax laa ji am waaw ba léegi sa dégg nga ma ah loolu wax de nee na ñi la ko jëlloo dañ lay nax ba ba léegi kan nga gis si télé bi muy wax c'est la première ba làmb ji taxee ba léegi ma wax mhm. ngi nii maa ngi doog a wax te paa yooyu muy wax mhm. ni da am cër am respect gaynde ñooñu ngay wax say kilifa lañ te ñoo ñooy rëq sa ndigg yow eh. waaw dégg mu li nga wax de nga tàppet la Bib Diop ragal nga yow Diop nee na yow français nga doo xeex <laughs> nee bu ba xalaatoo samp jaaga sa digganteeg moo tax man la xaw mais na noonu ba làmb ja xam mu jël la dix-huit eh. jotee ak ñëpp xam nu mu demee kon combat bi seentuwaat nañ ci Bébé Ama mi ñu gisoon bu gën a woow boobu gën koo oos gën koo sadik pare fépp si xeex beeg si bëre bi lépp aller retour fu mu kupp ma baatere eh ay mbayar ragaluma loolu mbete ay mbayaar moom moom xam na loolu sax ñemewul loolu pour moom nii baat du la fay na ba wax ji rek la ci am boo bu bu bu baatee nga kupp baat du la fay na ba lu mu fay du du baax ci moom bu bu jëlee aas bi sax non aas moom maa koy teeb bi ah boo coupé mu baat man wala nga baat mu coupe bu la fayee ba du la fay na ba aas maa koy teg man man maay aas damay xalaat mu fay la diis téréfal fay boppam aas téréfal du am dara aas sama aas la aas sa aas la kon la diis la kaat man maay aas moom mooy diis mën naa doon sax téréfal moom man daa bari de sept téréfal lay nekk wala huit téréfal moom lay doon man moom sama aas moom maa ko moom te bu bu neexee yàlla. Hmm. bu arbitre sifflé yàgg yàgg sama loxo mooy jóg. est-ce que Bébé Ama pare na pour samp jaaga. lu mu indi fekk ko fi. sa digganteeg biib Diop. lu mu indi laa la wax fekk ko fi. bu xeexee. ma duma ko. bu bëree ma daan ko jël bu rëy. li ngay wax ni est-ce loo gëm la. nee naa lu tëw a xam yàggul bàyyil ba samedi. Hmm. maa la wax lii yaa ngi dégg loolu. falaa jëmam non fii dafa dafa am dafa am ku fi yàgg a dëkk tudd top 5. moom laa lay wax kooku noonu sama doom day la sama garant la di ko ñaanal tamit moom xam nga yàlla may ko ndam ci bis bi mu jëm. kon su ma déggee sa wax. du di ñaanal waa kër fa nga bëgg a yóbbu Bib Diop si turam boobu nga bëgg a yóbbu Bib Diop. mënu koo bañ a mënu faa bañ a dem. ah ko téere yow bàyyi ba làmb ah man daal lu waay waxoon dama naan di nga ci dellu. ma ne la bu bu ma daanee naa la wër ci alayaay ba gis la wax la li ma lay wax jaaraat ay xale tëgg ko muy les jeunes amateurs wala les amateurs tëgg ko nekk ay xale yéen at ñoom li ngeen magante bariwut tey jii est-ce que li ñuy xaar si yéen bu jour ba di ngeen ko rempli waaw di di kontaanaat yi ñoom di leen bëggee damaa fàtte loolu sax mhm. waaw di leen encourager tamit ci micro di leen encourager tamit ci lii nii ndax àdduna mhm. boo gisee mu ñëw ci dara bu yokkul daa wàññi te ñoom yokku nañ mhm. mënoon nañoo ñëw ne ñun ay amateur lañ rek yem ci loolu mais dañoo jël seeni moyen def ko ci ñun waaw te bu neexee yàlla li ñuy wut ci ñun non man boog li ñu bëgg ci man dinañ ko am ba mu wis dinaa mobiliser ba mu neex dinaa ñëw tuus ba mu neex mu bëre ba mu neex daan ko jël bu rëy. moom kan. Bib Diop. <laughs> gis yéen ñaa ñëpp ngeen nekkoon ñu naqaree utal adversaire. Mhm. góorandoo porte bu ne fëgg na ko moom ak Mor. waaw. moom ñu fëggoon ko mu ñëw fii ba mu yàgg mu delluwaat. mu daaw waaw nekkul dafa yaakaar ne fii daa xaw nooy mu doon uti lu dëgër <laughs> nga gis lu nooy lu nooy nepp dem xooli ah dafa jàpp ne fii daa nooy mu doon xool lu dëgër dafa xam ni fii nii lépp wow asib en la. ku eh? fi dugal sa loxo dootoo ko def. kon bu jour ba alxatar gi day tegu. Mm-hmm. seytaane boo koŋ laa koy indil. <laughs> non loolu moom seen yëfa. seytaane ndax comme zoo nee na comme zoo fii la dëkk moom yow seen yëfa. comme zoo technique fii dëkk moom loolu seen yëfa seytaane moom seen ah, yëfa <laughs> loolu moom xolo bu amul sa xalaat tamit tamit am na loo xam dama koo faate mhm. ci laa waroon njëkkee mhm. di jaaree sama papa joxaane waaw di ko ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jógee sama papa suma xam nga moom dama foofu laa waroon njëkkee ndax samay papa lañ yoo xamante ni taay ma daan bëree dañuy sonn ci man mhm. waaw ak seen i njaboot di leen jaale kër Mbay Faal bi yëpp ak képp ku ci génn adduna rek ci année bi di nuyu sama yaabooy bi génn àdduna démb dafa def accident mm-hmm. ak sama copain bi di leen ñaanal xam nga yàlla yërëm leen te xaaral leen àjjana ñëpp wala demee loolu parent mais ba ama mm-hmm. ku la wax ne am nga combat ngi lay nax lam boo ko jëlee bu dee booy bu ndaw sax am nga combat hmm, booy yi nga daan jël ak booy bi boo bokkut ñi fi ma jaar a gën a teng fi mu jaar foofu kii kii loxoy daa jot de ragaluma loolu sa nee moom loxo bi maanaam kii la kele boobu dul dam mu fakom nee la tàppet la du gis ku tàppet xàcc muy gëmm seetaan na lay combat man kay seetaan naa juróomi combat yëpp seetaan nga xeex dégg naa la bu ñu ko wax tamit lan laa ko wax àdduna xam nga fii amul luy nëbbu àdduna yàllaa ko moom lépp teraanga la yooyu mais tamit moom it ni muy yónni ci man nee mu bàyyi leen mënuñu ci man dara teen micro bi dafa am ñu muy yónni si yow mënuñu ci man lenn xam naa lépp damaa eh. fàtt fépp pare toog. kon son dafa am fàttal ma foofu. fàtt naa fépp foo xalaat fàtt na. Eh. bul xalaat sax. comment bii nii Bib Diop bu ñëwee sampal la jaaga. wala yow dégg nga moom. seytaane laa koy indil bu wow kong lu mu indi fekkoo fi. seytaane ma xeex ma xeex ak moom ba esaat bi yëpp jóg mu bëre ma bëre. loo est-ce que jar du nga doo indi fair play rek. non non seytaane bu wow laa koy indil. balaa muy waaw ah, yéen waa Kër Mbaye Fall lu bu ngeen am rek. Hmm. indil ko seytaane wala zoo mooy seen mag. waaw zoo tamit suñu grand la moom it xam nga. noonu la demee ñu jël ko. comme nee na dóor jàmm. zoo dafa war a bëre. di zoo wax ànd nga si yow. waaw bëre dóor bëre du jàmm de. <laughs> bëri amul daraay jàmm yow xoolal li ma lay wax yow nga xëy weer woo xamante ni chaque jour nit a ngi ci yow pour yàq la. waaw. waaw ngeen ñëw war a taxaw jàkkaarloo arbitre sifflé puus na le ku mun sa morom rey. boo rayee war a def jokko maa joor jokko leen. foofu boo rayee sax dagan na. kon kay li wax dëgg la. làmb door du jàmm. làmb rek moo am ñaari nit ñuy xeex ba deret di génn te police du wax te day taxaw. dégg ma li nga xam ne dégg ma <laughs> dégg ma li nga xam ne nga ne làmb rek. làmb rek moo am. waaw ah. ngeen xeex di dóorante. policiers yi taxaw nii deret di génn te kenn du àtte. lu tax loolu. ah mooy mooy li ma la wax rek amul jàmm. kon kay amul jàmm la soo wax dëgg la dara jàmm na kon kay la soo technique wax. seytaane soo moo leen nuyu au passage. soo waaw moom tamit di ko bëggee waale. waaw di. làmb namu nañ ko nag. waaw di ñaanal buuse. combat bi mu jëm moom tamit yàlla may ko ci ndam sama gaañ la. Hmm. di woo buuse mu mag tam kuy jéggi dex du reeku lab waaw non loolu loolu loolu kuy moom day am ndam ndax ndax man maay moom te moom mooy man waaw dafa ñëw tamit bi mu ñëwee xam nga toog suñu ginnaaw xool doon suñu lépp hmm. du ma ni sax suñu raq suñu moroom la mais xam nga nit moom bu la jiitoo si dara rek sa mag la dëgg la waaw noonu la demee di ko ñaanal ndam di woo buuse bu mag di woo sëñ moodu xam nga sama copain Soulay kontaan naa ci yow Elimane Seras Mor Mbaye espèce kii mention Mor. Mhm. sama papa la sama lépp la. waaw Moussa aw ma aw maa ngi koy woo ci combat bi bu baax musaa Bousse waaw di woo ñëpp Kër Mbaye Fall gi yëpp ah maa ngi woo ñi ma jàppale ñëpp maa ngi maa ngi leen di bëgg di kontaanee yaa ma gën a xam sama gaay yi mafia bi waa Dias ba Cité ba aw ma seen waa Ridis maa ngi leen woo waa Cité Poste xam nga Kamb Ridis Tool Dias Mbaaw Petit Mbaaw xam di woo Kër Mbay Fall bi yëpp commune bi yëpp bàyyiwuma kenn waaw monsieur le maire maa ngi koy woo ci kombaa bi ñun dañ laa soxla ci combat yi genre yi lañ lay soxla. monsieur le maire ban. waaw Abdou Karim Sall di ko woo bu baax mu ñëw jàpp ci combat bi ndax ñun amuñu dara lu dul lii Kër Mbay Fall tamit amuñu kenn ku dul ñun waaw dangaa war a ñëw jàpp ci ba sa loxo ci affaire yi ñu dem loolu rek lañ manqué ñun. mais bu dee kon Kër Mbay Fall maanaam jàppale bi tax li gars yi di jooy mu na Kër Mbay Fall di waaw ñun ni ñu koy sax dafa xam nga am na ñoo xam ne sax am benn wala ñaar amuñu. waaye man Abdou Karim Sall damaa mu toog mu dégg mu ne moom mbëru kër Mbaye Fall ku si bëre pare na pour buur da nga koy soxla dem ba foofu. kañ nañ bind nañ bu yàgg suñu suñu suñu kayit. demande audience boobu ba léegi su ma juumul def na weer. ba tey gisuñu dara kenn këyit bi dem dellu si sax defu ko te ñoom ñu ne ñoom ñoo ñu war a jàppale ñoo ñu fi nekkal ñun tamit ñoo leen fi waroon nekkal comme ñoom nit ñu fiy nekkalee. dëgg la waaw ah, mais nit ko nit moom koo xamul nam lay def rek. nam la dafa tax mais ñoom ñu dara. waaye yéen li waroon ak ñoom def ngeen ko. ñun lépp lañuy ñuy def lu war ak ñun ñun ndeysaan yàlla moo ñu dimbali ci dëkk bi buñ jugee ñu koy jóg kenn du des yow xam nga li ma lay wax. ah la mu daan gis de bu dee dakkut lu ko gën a piir moo fi ne ndax xale yi dañoo màgg xale yi dañoo dañoo màgg si lépp si lépp tey jii looy yóbbante sa adversaire waaw di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm moom bi jóg di ko ñaanal jàmm bu baax a baax ba làmb ja mu ñëw ma jàpp ko daan ko après mu jeex waaw dinañ nga woote waaw di woowaat Kër Mbay Fall Kamb Ridis Tol Diaz waaw Cité Poste sama gaay mafia bi maa leen woo bu baax sama gaa yi ci biir tamit xam nga mënumaa lim ñëpp mais ñoom ñëpp maa leen di béggee di leen siyaare te di leen màggal Lamine Ndiaye maa ngi koy siyaar ak waa gaale bi awma seen fay waaw waa njaayeen gi yëpp sama gaale tamit maa leen siyaar sama mag yi ñoom ñëpp amu ku ma ciy bàyyi su ma limee tamit day yàgg pour tënku ko rek di nuyu monde entier di leen béggee di leen wax ni combat bi seen combat la yéen waa Kër Mbaye Fall waaw Zambala bu mbaaw sa mag waaw nee na ma daf maa dig boloogu tikke moom zam zam booy bi xale la gersu ko waaw bolo bi maa ngi koy xaar booy ñaa papa aw ma sa fay kontaan naa ci yow waaw Jackson sama copain waaw sama copain Jackson waaw di ko di ko ñaan di ko wax ñëwaatal gaynde da nga am wàll ci làmb bari sëñ Bamba mm-hmm. mbër mënu la mbër dàqu laa bëre xëñ na nag yàlla mooy dogal ndax nit bu doon may boppam du ñàkk dara. dëgg la te yow champion nga. di la ñaanal nga am beneen combat am ndam. Jackson bu mag tamit maa ngi koy bëgg ah, gis naa affaire yi kontaan Bamba Tall ah. ñëpp daal maa ngi bëggee ñëpp. après li xam nga nuyoo la woon nii rek am lu ma coxaas tontu bërë bi. waaw mais day ñëwaat. waaye après combat day ñëwaat. loolu mënoo ko bañ. mënuñu ko bañ. seen yëfa <laughs> xalil mi ngi noonu koo koy bébé Ama depuis Kër Mbaye Fall nekk xale boo nga xam ne la ko làmb bàyyi xel xale la boo xam ne tamit yaakaar la si làmb di wax jeune amateur wala les amateur ñoo woote la kat diggante Batista booy Sadio Bib Diop bébé Ama yéen bu diis cinq tonnes wala yéen bu diis bari na te doo xoolee journée boobu dafa mel ni ñaari doomu Kër Mbaye Fall ñoo siy jóge ndax su ma jimul almaa fi la dëkk si lay jugee ah, ah. kon kii day jugee góos kii jóge droite waaw ñu war a bàbbeeku jëm kan arène nationale di bëggewaat ñëpp rek di ziaraat ñëpp di waat ñu si biir kaso bi bu baax a baax nag Sambour in ba fi mu yem ak leen di bëggee bu baax a baax a baax. am lu ma fàtte woon papa Lamine Ndiaye. meen Mbaye. waaw ñoom yaayam waa kër gi ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen santaat ku ma su ma limul rek damaa juum xëy a affaire dañoo xaw a bett. dëgg la ak ni mu demee moo tax mais maa ngi bëggee ñëpp. di bëggewaat ñëpp rek ziaraat ñëpp waaw waa kaso bi ma bàyyiwuma kenn kenn bëggee naa yéen ñi si biir ñëpp chambre une ba fi mu nag bëggee naa ñëpp ziaraat ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay avec Khalil tout est possible